jullikaay bi di Sud Quotidien di ñëwaat nag ci ab commission boo xam ne njiitu réew mi daf ko a taxawal ngir ñu saytu lépp lu jublu ci ay recommandation yi nga xam ne waa Cour des comptes ñoom ñoo ko fësal ginnaaw ba ñu daal di jébbalee nag seen i rapport yu atum 2015 ak tamit 2017 ba léegi ci xët bu njëkk bu jullikaay bi di Sud Quotidien suñu yi di ñëwaat ci ay kaddu yoo xam ne ki ñu ki nekk secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur di sax du ñu xamal ne ci wàllu feebar googu sax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy seen i waajur ñoom nag bëgg nañu daal ci ni mu gën a gaawee ñu jëlee leen foofu nga xam ne nag moom mooy ca Chine indi leen fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi loolu sax moom moo tax ba eh, bi di eh, critique tamit xam ne li ni mel ak tamit ëccolikaay eh, bii di di wax sax ne ma ngay doyloo ay waajuru sénégalais ya nekk fi li nga xam ne moom mooy ca Wuhan ci biir ëccolikaay bi di Les Échos ñoom sax daal di xamle ne nañ leen indi tey ji léegi léegi moo gën nag ñu bàyyi ba ñu ñàkk seen bakkan ñuy indi seeni néew direct info moom di ñëwaat ci wàllu njëndam njaayam gerte gi di ñu xamal daal ne atum ren moom baaxul dara waaye cuulikaay bii di waa Grand Place di ñëwaat nag ci accord de pêche yi nga xam ne day faral di indi ay gilaawaale ak i coow fii ci mim réew wàllu lamb la ñu koy jeexalee ak cuulikaay bii di sunu lamb di ñu xamal ne juróom-benn weer donc moom moo des ngir ñu daal di ndar képpee saison de lutte bi ki nga xam ne nag moom mooy Gris Bordeaux bi moo nar a nekk juróom-ñaareelu saison blanche